sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique l'assemblée. Fille de nos cœurs verts, épaule contre épaule, mais plus que frères, les Sénégalais debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salikame lii ku ko munul dee rek la war ku ko munul da dee léegi damaa jàng nag. waaw jàng da ngaa xam ne. mais diggante unisola mer bi. unisola step bi. loolu jàng naa téeméeri at